محمود السلام عليكم ورامي السلام عليكم sama mbokk sénégalais yi d'abord damay wax sama mbégte mi ma am ndaxte fii ci place bi yàgg naa fee taxaw waaye taxaw nii di xool nit ñi ñu koy diir ba ca BCEAO mu nekk ay nit loolu mosuma koo gis place de suuf mun leen a gis nit la nit ñi commencé ca beneen bi ñëpp am ay nit ñu toog loolu mosul am place de l'Obélisque loolu li muy firndeel li mooy sénégalais yi pare nañu. ku nekk ci ay tappale ak layam layami say mbiri bopp la mais sénégalais yi nekk ñu ci ay caaxaan maa ngi wax maa ngi wax ci turu syndicat enseignant ah, sama turu syndicat kisams authentique ak kisams ak sayems ak sels original di woo yeneen syndicat yépp ñu ñëw signer la plateforme F24 ba noppi mobiliser seeni militants pour taxaw pour parce que réew mi lu fi mos a sotti jàngalekat yi ñoo nekk au devant kon maa ngi woo Sénégal jàngalekatu Sénégal yëpp ñu ñëw ànd ak F24 pour exiger suñu démocratie jaar yoon ki nga xam ni mënta bokk du bokk ki nga xam ni moom ñëpp xam nañ ni li muy yóot mooy bokk nekk candidat en 2024 te mënta doon candidat en 2024 beneen mooy ñi mu terewoon ñu nekk candidat dañ leen di andiwaat ñoom ñëpp ñu nekk candidat muy Khalifa Sall muy Karim Wade ñoom ñëpp am droit nekk candidat Ousmane Sonko mi jéem a éliminé kenn du ko ko fi maye Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko. merci beaucoup Ousmane Sonko est candidat comme tous les autres Sénégalais. parce que dara mënu koo tee nekk candidat. merci beaucoup donc vive la démocratie. vive l'état de droit. vive la démocratie. vive la démocratie. jërëjëf jërëjëf